ñoo ci nettee téeméer ba ak juróom-ñeent fukk ak benn mbooloo mi mas naa bari lool ci këru daaru mannaan ñëw di leen yëgle ci Serigne Touba xaadalawo law maxtaar lawo mu wax ni nee leen ku ci bëgg ab xaalis na dem ci buur yi ñoo am xaalis ku ci bëgg ajjana na dem jaamu yàlla subhaanahu wa taala ku ci bëgg lu dul yàlla fu mu fi man di nekk na ñëw ñu dem sëriñ bi lu nax kenn waaye itam kenn mënu koo nax mboolee murid yi li ñuy bëri bari ku ci ne xam na la ko tax a jug xam ne itam na mu koy jariñe ak na muy jariñoo ci moom ku ñëw ci moom wax ko la nga bëgg dana la tegtal yoon wa ngay jaar ba am ko boo ko defee faw nga am na nga bëgg boo ko defee itam du tee muy ànd ak yow ci sa bëgg li feeg wuute wut ak bëggug yàlla subhaanahu wa taala wala alam